monsieur le maire nga euh, man la Pape Bassir Diop maire de la commune de Thiès Est. Euh, ñëw ak ci solos ndaje bi tey fii. Euh, solos ndaje bi mooy ni nga ko waxee sànq rek que dañ doon ñëw di def évaluation ci conseil municipal bi passé woon le vingt cinq février pour ci vote budget bi nga xamante ni moom la maire de la ville woote woon ci convocation yi bon le parti réew mi. wuy jiw nañu massivement et que ils étaient quarante cinq présents defe naa ni pour euh, préparer woon pour le vote mais malheureusement bi ñu demee gis nañ li xew que ni vraiment dafa mel ni ñoom xamuñu fu ñu teg seen tànk parce que ñun am nañ quarante cinq présents ak trois euh, procurations donc euh, au moment bi séance bi commencé dégg nañu madame le maire wax ni nañu commencé en attendant le maire de la ville ñëw malheureusement fa lañ nekk ba si yàgg ñu posé problème boo xamante ni avant ñuy dem ci vote budget bi ñu déclaré que ñu nan voté le compte de gestion compte administratif finalement ne ça ça n'était pas donc loolu moo waral euh, problème boobu aman ñu nekk nag di def ay dilatoire ba yàgg ñoom seen bopp le maire lever la séance donc ñu nit pour ñu ni nanu toog nag waxtaan ci suñu biir parce que ñoom li ñuy gëmloo nit ñi mooy dañu bëgg a bloquer ville que ñen ñoo ko war a bloqué ñu ni waa réew mi c'est pas vrai waa réew mi bloqué wuñu kenn waa réew mi ñoom moom Thiès par les urnes donc mu nekk lu leer nañ et puis des années ñu yore ko di ko doxal def nañ fi gestion yoo xamante ni macha allah mais donc kon naka la ñuy mën a ñëwee yow nga nekk nga yore sa majorité war a li nga bëgg a doxal nga doxal ko te ay voix la koy may mais nga ñëw ci conseil naan da ngay bloqué mais amul sens te moom mi wax loolu. ak ñi mu àndal ñun ñoo leen ko jox le secrétaire général Idrissa ci boppam moo ko jël jox ko moment boo xam te ni mu soxla woon ko lool nag kon bu ko joxee ñu ni rafetlu ko ànd ak moom di ko accompagner mu dem ba moment bii mu dañuy bloqué loolu na nit ñi xam ni wax la joo xamante ni vraiment bu ñu seetloo ca ginnaaw ak lam doon wax niroo la jëfi tey. léegi fan la bëgg a jaaree ba jot ci budget bi. ba jot ci budget bi. ah fi mu bëgg a jaaree xam nañ le 31 mars bu ñëwee bu ñu voté wul boobaa day delluwaat ci le représentant de l'État mais ñun loolu moo tax ñu ni loolu mënta nekk donc voté na le 25 may nañ ko une semaine je crois am na droit mën a convoqué waat su ko defee ñun dinañ ko wuy ji su ko deful nag ñun dinañ def li nga xamante ni yoon moo nu ko may préfet war koo mën a rappeler mu mën a voté mënu ko conseil bi ci boppam bind ko pour que ñu mën a convoqué conseil extraordinaire. mais compte yi ngeen di exiger est-ce que dafa am lu ay ay lu ngeen ci gestion bi moo tax ngeen di ko exiger. waaw mais xanaa déggu li li ñu la wax ci compte yi bu ngeen xoolee ci masse salarié bi yor ci compte yi li ñu jot a gis ci euh, euh, gestion bi nekk na loo xamante ni dafa tey suñu xel te am na loo xamante ni au moment venu mën nañ ko wax donc nag loolu xañ na la ñuy daw pour ñu dugg ci débat boobu moo tax ñu def dilatoire bi mais ñun ñëwuñu pour bloquer ñu pour leneen parce que toutes les communes euh, Thiès Est Thiès Nord Thiès Ouest voté nañu seen i compte de gestion ci boppam moo ñu bind nim nu bindee lañ ko bindee moom pour mu voté ko d'ailleurs le préfet était la bas l'adjoint du préfet de la ville ma nga foon génn na def déclaration bu leer xamal leen ni leen lii ñuy wax dëgg la bala ñoo voté budget dañoo war a voté le compte administratif. est-ce que mën nañoo dem ba ngeen ñaan ñu jaarale ko fi ñu jaarale maire Dakar. mais maire Dakar xam moo moom moo gën a xam ni du ko def parce que defe naa ni ne état bi ñu toll actuellement ci Sénégal bu ñu xoolee ni état bi doxee.

ku ku ànd ak ñoom du am mais loolu nag taxul Sénégal la jóg mais ànd ak ñoom di def lu la lu la neex mais defe naa ni nañu xoolaat ni bu ëllëgee boo àndut ak ñoom nooy def loolu dafa jaaduwul moo tax ñu ñu koy déplorer parce que li ñu def Khalifa Sall notre frère ñun ñëpp dañ koy apporter suñu soutien parce que rafetul jaaduwul ñàkk ànd gi ci benn Bokk Yaakaar kese la moo tax ñu téye ko nii. su convoqué il a la majorité des conseils des conseils municipaux kon moom d'une manière parce que la convocation du conseil municipal maire moo koy def su maire convoqué wul nag dañu ni le représentant mun na ko contrainte mu convoqué wala le conseil municipal contrainte ko mu convoqué mais la convocation du conseil municipal c'est le maire moom mooy jouer au dilatoire il y a pas de blocage et de rappel le 25 février ñoom ils n'ont même pas reporté dañoo wax ils ont suspendu la séance pour dem indil ñu le compte de gestion loolu la ñuy wax on suspend la séance comme yéen mënu leen voter compte administratif sans le compte de gestion dañu leen di dem dañuy suspendre la séance ngeen may ñu ñaari fan ñetti fan ñu lijjanti compte de gestion bi indi ko ngeen voter ko mais depuis le cinq ba tey la 14 ñu ngi xaar loolu nekkatul suspension mais waxaatuñu dara te tant comme le con euh, convocation maire a ko yor su ko maire deful. le représentant contraindre ko pour mu convoquer bu ko deful ñun conseil majoritairement te ñun nu sommes majorité majorité nous avons la majorité parce que sur les quatre-vingts conseillers ville yu ñun réew mi compte cinquante-cinq plus même ñu nga xam ni nekkuñu réew mi ànd ak ñun kon largement nous ah waaw comme nu nga nu nga ko bëggee rek nu nga ko bëggee muy réew meeg ànd defar mais nu sommes majoritaires au niveau du conseil municipal te tey conseil yu teew fii wan na ni le conseil municipal de Thiès ville réew mi et majoritaire. te boobu sax dañoo nax parce que dañ ñu woon la maire Talla la dafa jël avion dem Canada du lijjanti ay oto pour Thiès boobu temps mi ngi biir Thiès boobu temps mi ngi biir Thiès le samedi 25 Talla Sylla ci suba si mi ngi biir Thiès on a toutes les informations. mu envoyé sa sa sa première adjointe ne leen faire face dem demal préfet xam na ko préfet moo tax ñëwul comme moom ñëwul préfet envoyé adjoint am ne comme maire Talla la day muus muus lu ñëwul mu envoyé adjoint am léegi mu nekk ñaari adjoint yu jàkkaarloo conseil municipal bi pour affaire ba nag jaxasoo parce que nii la l'adjoint xamul woon fu muy taxaw mu nekk li nga xam ne lu ñaaw la lu ñaaw la pour le conseil municipal de la ville de Thiès kon ñun depuis boobu ba léegi ñun dañ koy wër dañ koy wër dañuy wër suñu convocation moo ne woon suspendre na way na fu nekk santé na fu nekk ne jub na soxlawul alalu Thiès alal mais dañ ñu ko compte de gestion bi ak compte yow koñ lii indil ñu ñu xol waaye loolu dañ cey am information wax bi jotagul am nañu toutes les informations par rapport à la gestion de la mairie de ville wax bi jotagul mais ñun lu ñu ko soxla mooy na convoquer la conseil municipal. non dama ni waaw non xam nga lu tax non dama ni tey dinaa la ko wax mais dama lay jox ñamal rek dama ne la 2015 nee na woon mun na am un budget de 1 milliard 660 millions mu recouvrer 497 millions. ci 497 millions 70 millions la def dépense dépense yooyu xam nañu ni mu demee ñun foowuñu 2016 il a dit que mën na am 1 milliard 900 millions mu recouvrer 512 millions parce que dafa amoon report 81 millions 620 millions la recouvrer 2016 mais 2017 bi nag mu indiwaat budget 1 milliard 900 et quelque xam nga boo jëlee la masse salariale de Thiès de de la ville 400 millions la. nga boole si bor yi mu nekk quatre cent vingt millions huit cent vingt millions si ñaari dépense obligatoire mairie Thiès dafa ndërmeelu te wax jotagul luñ koy luñ koy ñaan mooy le conseil municipal bi obligatoirement day war a réunir voter son budget mais du ñu nangu mukk nag mu langaamu si mbagg état bi pour mun a disposer d'un budget nekkat fii du ñu tànkal non mais dama ni la le vingt cinq le vingt cinq février ba mu wootee le pour le pour le vote du compte administratif ak le vote du budget sur les cinquante quatre cinquante cinq conseillers de réew mi les quarante cinq conseil étaient présents donc ñun ñi teew rek waa réew mi rek joxoon nañ ko majorité parce que dañoo sonnoon que nii waa réew mi dañuy boy mais ci vote examen bi pour wan ko nii lu ñuy wax amul. sur les cinquante cinq conseillers de réew mi quarante cinq yi teew nañu te quarante cinq yi c'est la majorité du conseil municipal ak ay procuration mun naa ko donc plus de cinquante conseillers réew mi toog nañu non xam nga dama ni xam nga dañoo toog la ñun du ñu ko jékki-jékki dem conseil ba du rey réunir dañu ne le maire mooy convoqué toog nañu du xaar parce que jàpp nañu ni deful report dafa suspendroon séance am séance ba bu mu suspendre am na fukk fan ak ñeent xaw ma am na ñaar bi léegi mu jege ñaar fukk fan léegi nag ñu ne nag suspension bi doy na comme dañoo war a continuer les travaux pour le vote du compte administratif ak le vote du budget mais jot na parce que nekkatul le budget ñun ñi ñëpp am nañ ko lu ñu amagul mooy le compte administratif ak le compte de gestion boobu bu ko indee mais te moom 48 heures 60 même bu fekkee sax par euh, bu délai am na nu ngay defee mun nañ la may sax nga woote dans les 48 heures donc bu ko neexee demee mun na woote samedi ñu ñu ñu ñu voter son budget. xam nga waaw déedéet dama ne ñun nekk guñ si sur le plan politique réponse politique bi dinañ ko def jotagul tey on parle dans le cadre de l'institution mairie ville te mu nekk maire introuvable. qui refuse de convoquer son conseil municipal pour le vote de son budget tey loolu mooy wax bi mais leneen li nga xam ne mooy politique lu muy wax kooku ci fan yi di ñëw dinañ ko tontu tontu gi jotagul waaw mais non doomu ci tontu waaw non tontu du forox dama ne la yéen côté boobu ngeen lii mais tey c'est c'est purement déjà institution bi moo ñu ñor le conseil municipal de la ville de Thiès lu ngeen bëgg li dina ñëw ñun daal lu ñuy wax dañuy jël à témoin les Thiessois moo ni woon saa wootee waa réew mi du ñëw dañ koo bugg bloqué léegi waa réew mi ñu ngi koy wër pour mu convoquer son conseil municipal loolay wax bi. jafa jotagul xam nga euh, si ñun tey dañuy respecter le parallélisme des formes. tey dañoo woolee conseiller te xam nga déjà waa réew mi rek nekkuñu fi yàlla le conseil notre ami frère Aliou Diop bi nga xam ni ci conseil municipal bokk ak ñun gis-gis tey teew na fi kon soo ñu buggee dugal pour ñu prononcer sur la situation politique kooku jotagul bu leen yàq ci fan yi di ñëw réew mi dina dina dina dina dina daje parce que moom ba mu koy def dégg naa sax léegi. bàyyi na mairie ba dem na fal siège euh, fal askan gi foofu lay daw na mairie ba léegi day politique ñun politique jotagul parce que nag askan yi bu ñu la falee lu nga xam ni moom lañ la falee loolu da koy lijjanti ba pare soo ko lijjanti ba pare nga dem politique mais munoo bàyyi munoo jàpp lu nga xam ni askan gi dala ko jox nga sànni ko di dem di politique ñun jotaguñu ba ñun dañoo bëgg régler le problème di conseil municipal ba pare